ci biir lii. xam nga Souleymane. Mm-hmm. dafa am lu nit ñi di fàtte. Mm-hmm. mooy yàlla mooy dogal. Mm-hmm. benn mag daf daan wax ni ku ñu tëkku. nga tiit gëmoo yàlla. nit di dem naan la ay bàyyi naa sama di di nga am loo gis fan yii. ngay tiit. gëmoo yàlla. di nga xam ni mën nga ko siqal di nga xam ni ñun suñ famille kenn duñu tooñ di nga xam ni man billaay di nga xam ni lii di nga xam ni ñun <laughs> ñun kenn duñu tooñ di nga xam ni ñun ah, dugg nga foo xam ni boo delluwul gannaaw tus fii fi fii yàlla doo nga fi nekk wallahi alazim ku xamul loo reeree démb xamoo ban heure nga nelaw mënoo ci jàmm ñu tus dama la ni. Hmm. ku xamul ban heure nga nelaw démb. Hmm. nit ku ne xam nga heure bi nga tëdd. Hmm. mais heure bi nga nelaw juste xamoo ko. kenn ku xamul heure boo nelaw démb mënoo ci nit ñi tus. fii ay tappalee fi am rek. ne fii di xuuxalaateeg gaynde amu fi ay nit a fi nekk nit. di tëkkuwaateeg di nga xam ne ñun ku ñu tooñ ak di nga xam ne nangam lu fi dal nit daa neex yàlla. dafa am benn mag mu ñuy wax Serigne Touba xam nga lu mu wax. Mhm. ad durru wan nafu min arrahmaani. Serigne mhm. Touba nee na liy dal nit ak la koy lor yàlla képp a ko mën. ku dul yàlla munoo ko. Mhm. bu jaam ñépp dajaloo woon xul lan yusibanaa illaa maa kataba lana huwa mawlaana wa ala allahi falyatawakkalil muminuun yàlla nee na bu waa France gépp dajaloo woon pour lor la te ànduma ci kenn du lor ñaata nit ñoo fi pexeel nit ba tàyyi pexe mi sottiwul. dara am na nit koo xam ne fi mu toog moom xam na ni jéemal nañ ko ba tàyyi dara sottiwul. Mhm. liggéeyu ndey rek dana ko def yenn saa yi sa yaay dana sonn sa kër bàyyi ba kenn du mën a toroxal. Mhm. yenn yi sa yaay muñ ci biir néegu sëyam loo xam ne foo mën a dem ci àdduna da ngay am ndam. Mhm. am na koo xam ne ku ko yéene fande. <laughs> mis wi lay reeree mis wi gileem. pare désertu. naan attaayam zirik tëdd nelaw. jeex na. wax bi. Mhm. am na doomu aadama yoo xam ne ku leen yéene fande. Mhm. mis wi giléem lañuy reere mhm. naan zirik. naan ataaya jaaxaan. mooy ñi seen yaay liggéey seen kër baay. kenn mënu leen a toroxal. am na ñoo xam da ngay sonn rek mi ngi mel ni miir bi rek nga koy jéem a xoos. say wee cay damm te doo ca mën tus. am na ñoo xam ne caaxaan de jëtiwu leen de. Mm-hmm. am na ñoo xam ne yàq de jëtiwu leen de. Mm-hmm. defu yàlla moo gën defu nit. Mm-hmm. defu yàlla moo gën defu nit nit lu mu def du yàgg. yàlla lu mu def kenn mënu ci tus. ki ne bitim réew yàlla ubbil ko wërsëgam muy am teraanga di ko am di liggéey. nga toog ca réew ma naan dana torox fu muy toroxee. yow mi amul métro ko yaa yaa torox. moom mi ngi xëy di yéeg ci métro yi di naan café. Mhm. nekk ci climat bu baax bii nga xam ne ñëpp fi bëgg ñëw coow lee bari mais ñëpp a bëgg a dem de mhm. mhm. ñëpp a bëgg a dem xanaa gisoo gaal gi <laughs> ñëpp bëgg a dem koo gis bëgg naa dem kon ki fi yàlla indi muy sàkku teraanga nga ne ca réew ma di ko jéem a fexeel ak di ko dóor di ko teg dil benn moodu moodu mënatu